di sant yàlla bu mu ñu mayee ñu fekkewaat ko defoon ko daaw ànd ak directeur général Senelec ànd ak délégation bu rëy daje woon fi ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ren tamit ñu dajaat fi ñu daal di ñëw saytu ak càmbar lan la Senelec euh, ànd ak directeur général lan la ñu def euh, ngir gàmmu gi lu mu meloon daaw ren mu gën a jëm kanam gën a baax euh, ndax loolu moo ñu war bu Sénégal yëpp jógee ci ay bërëb benn ñuy suñuy mbokk di suñu ay nit ñaar ñuy client dañu war a taxaw ci seen i mbir donc Senelec wane na ni. or yu jamono ji laaj ak ñu war ko def daañ ko def ba mu mot sëkk incha allah ngir gàmm gi jëm kanam ngir sénégalais fépp fu mu nekk ci biir Sénégal aussi am courant ci na mu waree. contre des personnalités morales de ce pays qui nous délivrent des messages d'abord de rappel historique. faut savoir que rien n'a été facile et que la foi peut soulever, comme disaient certains, des montagnes. a donné des exemples de personnes qui, par dévotion, parfois marchaient des jours et des nuits pour venir euh, dans des temps anciens, pas si lointains que ça, venir au Gamou. Quand il n'y avait pas de véhicule, quand il n'y avait pas de courant, quand euh, la lecture du Saint-Coran ou des poèmes se faisait par des chandelles, à travers des chandelles, et que les, les sacrifices que les gens consentaient, le consentaient par la foi. Et aujourd'hui aussi, euh, ainsi que nous y invite d'ailleurs notre devise, nous devons d'abord tous penser à faire des sacrifices pour notre pays, pour notre peuple, chacun là où il est. Et nous pensons que, en ce qui concerne le secteur de l'énergie, et particulièrement l'électricité, la Sénélec a pris des dispositions Euh, les plus appropriés pour que sur l'ensemble du territoire, euh, les gamos puissent être célébrés avec euh, l'esprit tranquille. Parce que vous avez assisté à la présentation qui a été faite et nous espérons qu'il en sera ainsi pour les années à venir et que nous irons toujours plus de l'avant, avec plus d'assurance quant à la qualité de la distribution de, de, de, de l'électricité. Et véritablement, c'est des messages euh, que nous devons tous écouter parce que c'est des messages de, solidarité, de loyauté, de fidélité et de, conviction. Et un peuple, ce n'est pas seulement les richesses naturelles, c'est aussi cela, ce mélange euh, important qui fait que nous puissions être une nation. Voilà. votre département ici à Théon, qu'est-ce qui a été tout à l'heure que Sénélec a exposé que les dispositions de l'année dernière qui avaient déjà fait l'épreuve ont été améliorées et reconduites. Et que l'ensemble des dispositions au niveau des procédures, du matériel qui a été fourni à suffisance, des